jafandul tuma yebbu di la ñaanal iyo yaay xareeru dalaw piki piki yaay maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di ñaan màggal gi nga xam ne màggalu sëriñ Tuubaa ji ñu def ren ci Tuubaa màggal bu nekk waaye ah sëñ sëñ Mountakha sëñ Mountakha balay sëñ sëñ Mbacke maara mama simi ci naawel yàlla gudd fan borom reeju ji borom xol bu rafet bi tabe te mën a def lu baax koy ñaanal yeggale yeneen bi ay ati ati ati ati ati ati yàgg fi lool te waaw ak soxna baali mu ndaxaar mu baax mi bu mën a dimbali miskin yéeg ñëw bi doole yaay booy yaay njirim yéeg baali soxna sëriñ sëriñ Mbàkke waaw sëriñ si am nga foo laal est xam nga ni moom maag yaayam ñoo nekkoon ma dem jënga ko ñoom ñëpp sama loxo yi lañu dugg yaayam am ku ma tegoon way bu ne way naa ko liiti liiti ma dem seen sab kama lu ne wax naa ko mu jàpp ma jàpp gor xam ni xool suñu jikko mu ànd mu jël ma taf ma ci boppam yërëm ma lool ma di ma jàpp liiti di ma jàpp ku mu jëm yóbbu ma li ma ko wax lu mu xam wax moo ma jàngal keroog ba nga xamee ni ñëw naa ni a damaa tàggat si rajo bi dinañ di problème ma ne da ngay mun ma artiste bu ñuy seetaan waroo di taxawaal ndax dañuy fay xaalis di leen seetaan sama waajur di bakka rek dara naan yal na xibbee àddina deseelu ma dara ci àddina soxna muumi na moom taalube la taalube sëñ Tuubaa la ndax alaaj njugo ko ba bàyyi bàyyi faalu sëñ Tuubaa àndoon nag ak suñ abdoulah baxam nag ñuy ñëw Touba gi di ko fekk boo fu musaane ñëw màggal ba gis sëñ ba gis euh, Ndiouga Kébé da naan kii du mu jaay léppam jënd ko ak mbaay suñu Touba di def lu baax dimbali miskin dimbali daara yi tabaxi jumaa di def lu baax soo ma laajee loolu dama jël loolu ah dama ciy kontaan mu jaar mu nag jël tànk yi bàyyam nekk taal bi loo ko woo ci Sëriñ Tuubaa taxaw guddi bëccëg tàpp sant lu mu liggéey Sëriñ Tuubaa la ko liggéey di dimbali di jàppale bëggul kenn ko am problème moom it soo amee problème xanaa da koo yëgul waaye lu mu tiit dina ko faj mbaalo asta binta aram joor ay sa faal am ta bokk mu jigéen tàkko benn magal maram mbay yàlla na ko yàlla na def ah, kii bii nu mu tuddee ti waay bi téeméer ak ñaar di gërëm sama goro bu baax ko Ablaye Tali ni ko may jàmm may ko salaam jàppale ko nag ci taalu bi gën koo nekk taal jëkkëram kon maa moo xam ne ñu bëgg ko yàlla defal yàlla may fan gudd la su nday jaw ndeyam jaw fan te dese bàkk man ndeyam de meroo maak samay doom meroo ma ko def li mu mën lépp ma koy defal la ma yaayam doon defal lu ko raw la may defal yërëm na ma yërëm na samay doom wéttali na ma te yàlla rek tax su ma man daf may xool comme ma ko nee jàkk day mel ni maram jot laa kon soo ñëwee fii fekk ma fii ci këram bii muy màggal nga ñëw wax ma woo ma ah, wax wax ak man lii ma la wax rek looloo am man nga war a waxal man wi nga waxal nag maa la wax li am. yow war a waxal yaa booy xanaa rek ñu tëjee ko ci musique nga xam woyum démb ak woyum. ah way lii déedéet woyum démb <laughs> ak mooy différence bu ngeen ne am na ji mu mel ne namm nañu waa Sorano. waaw xam nga ñun bu njëkk ba bu nuy woy dañuy gëstu ah, bu njëkk ba booy woy da nga koy gëstu jàng ko ba mu mokk maam yi di ko répété di ko jàng di jàng ay maam di tegale di tegale ñun buur yeeg damel yi rek lan daan woy ak tey. dégg nga jëkk ba wayu démb ni mu man ni mu ni mu mën a abdotiré sa yaram wayu tey mënu ndax léegi da ngay teg da ngay rek boo tegee marimba lu la neex wax ba pare bu jëkk ba col bi dafa yiw bi gis nga ni ma solo sama dara du feeñ ba may xale ba léegi nii laa mos di solo samay cër ñu moom ma sax mu feeñ kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi jàppale waat xale yi ni leen nañu ñëw ci mag ñi mag ñi di leen dolli xalaat nañu ñëw di waxtaan ak mag ñi di leen laaj seen xalaat bu ko defee ñu mën a jub dinañu mën a def lu baax dinañu mën a def lu neex réew mi waaye buñ demalee seen bopp rek féddee féddi géewu ah lu baax waaw ah, kon xale yi ñu ñëw ci mag ñi mag ñi jël kenn yi jox leen wayu cosaan wax leen ni ñu koy way ba pare sol col bu yiiw loo mën a mën a way way ci àdduna fekk solo lu yiiw way ba des ndax yaram jigéen léppam war naa mën a ñëw ndax góor gi lay bëgg li muy li mu bëgg ci yow boo gisee ci doo soxlaatu la bu jëkk ba kumpaa bala ngaa takk jigéen boo koy bëgg si sax dangay toog ni moom mu toog ne booy dem doo ko gunge waaw doo ko gunge bu jëkk ba lool la waaye xale yi boo ñëwee daan daa du beru toog fee ba ci yàgg yoon loolu amu fi jëkk ba doo gunge kenn bu ñëwee fee lay toog nga toog buy dem ñu la maa ngi demoon ko waaw kay waaye léegi loolu amatul nag moo tax nag éducation bi baax waaw éducation baax lii ngeen def itam am na solo maa ngi jaaral ñaanal seen télé seen rajo bi ak télé bi yàlla ko yàlla réussir yéen ñi ci nekk yàlla na leen yàlla barke ci barke yonent bi kontaan nañ su ma yebbu di la ñaanal iyo yaay xareeru bala